benn soxna si ñu seet si tey doon na koo xam ne ku ñu ràññee bu baax si milieu journalisme surtout dans les années 80 bokkoon na moom ak moromam ñoo xam ne ñu gënoon fës si métier bi naam métier bi période boobu yombuloon bu baax si ñoom waaye mun nañ ne que fësoon nañ ci loolu te def nañ ci ay jéego yoo xam ne yu am solo ba tey jii at yi di dem kenn mënu leen fàtte mun ñu wax waxu journalisme te tudd ñu seen tur sama caméraman topp ma ñu dugg si biir. di ko sàggal bu ñu yeewoo picc yi di ko ñaanal bu ñu yeewoo waaw waaw. ajaratu soxna Diagne nga ñoo ngi lay nuyu. waaye sëtu def. mala yi bu ñu yeewoo kontaan. Soxna Dieng gën nañ la gis si euh, scène publique bi mun nañ xam lu ko waral. ah ay surtout maa ngi leen di gërëm di leen sant soo noo gëjee gis ci scène publique bi peut-être parce que nekkatuma télévision ñu daan ma gis ngoon su nekk ci petit écran bi mais euh, actuellement je suis euh, à la chambre haute du Parlement le Sénat où je suis en activité. dañu bëggoon tey jii nga fàttali ñu. Soxna Dieng temps bi mu nekkee journaliste doon présenté télé vingt heures bu ne nit ñi doon ko xaar loolu. ah loolu de ay surtout nag xam naa ne ma wax ko dina jafe ndax waxa waxal sa bopp dafa metti mais xam naa ne daal euh, y a trente quarante ans euh, bi télévision di doog a juddu yàlla def na ma bokk ci ñi ko jëkk a commencé. di def journal télévisé di def animation euh, mu lu bees ci bëti nit ñi xam naa ne loolu tax sax ñàkkul succès bi ñu amoon ca période boobu doon ci lu bees li te xam ne Sénégal yi tamuñu ko woon gis mais melul ni léegi euh, metti woon na c'est vrai mais quand euh, neexoon na parce que lu bees la woon genre défi boo xam ne moom lañ ñu tegaloon te ñun ñëpp yàlla dafa defoon ñu motiver pour relever défi boobu. yaa ngi wax métit bi métit bi tamit gisoon nañ ne que nekkoon ngeen ay jigéen période boobu nekk jigéen journaliste doonul woon lu yomb ba pare ngeen doon liggéey ak ay góor yéen ngeen relever défi bi nekk ci kanam tout le ñi leen ñi gën a gis. waaw loolu rek ne Sénégal jigéen yàgg na fi nekk ci kanam jigéen yàgg na xeex palaasam. ndax euh, xam nañ ne sax euh, ay mouvement libération de la femme ak ba parité bi ñu yegg tey sax defa nañ ne bitim réew la jóge mais soo xoolee l'islam wala société traditionnelle euh, di nga xam ne jigéen ku mus am solo la ci société sénégalaise ak africaine moo tax bi yàlla defee ñu nekk ci liggéey bu bees boobu ci jigéen à l'époque ba xam naa ne xale yi tuuti ngeen wala peut-être sax <laughs> ganeegu leen woon jamono euh, ñu def ci suñu kett kent lay kàttan euh, def ci jom def ci fulla def ci fayda pour wane ne liggéey bi dañ ko bokk ak ay góor waaye mun mënuñu ñu ko yóbbul ci dara defe naa ne loolu taxoon yàlla jàpp ci defal ñu ci ndam bu ñëpp di waxtaanee ba léegi sant yàlla bu baax a baax. ràññewoon nañ leen tamit ci seen colin boo xam ne bu yiw bu sell comme ni ñu koy waxee ci tubaab. yow ak euh, Elisabeth Ndiaye gisoon nañ ne que vous êtes très sobre vous étiez très sobre à l'antenne mu doon loo xam ne référence la ci jeunes journalistes yi. waaw surtout xam nga nag àddina day dox suñu génération bokkul ak génération tey bi lu nekk aw na ci diggante bi ah, xam naa ne loolu tax duñ ko sànni xeer sax suñu doom yeeg. <laughs> suñu sët yi nekk ci ci média yi surtout média audiovisuel surtout télévision parce que télévision lu am solo la waaye lu lu dangereux la dañuy wax ne presque paaka ñaari boor la mën na la wane ci lu baax mën na la wane ci lu safaan euh, lii ci am solo daal mooy nga des ni la yàlla def nga nekk yow rester soi-même loolu wax ci ci tubaab mooy bu ci def ay artifice euh, yu ci bokkul à l'époque il faut dire aussi que euh, période bi daal c'était favorable pour ñun parce que on venait de sortir de l'ère Senghor ki a beaucoup chanté euh, kañ nit ku ñuul der bu ñuul kañoon ko ba xeesal yeeg yeneen yiñ doon doon gis ñun ñu nekkoon ci télévision bi moom daawuñu ko gis daawuñu ko jege te dañ daan euh, mettre en avant naturel bi naturel bi di sol suñu yére normal parce que léegi bon société yeeg boutique yi ñooy habillé speakerine yi di habillé journaliste yi à l'époque ñun télévision yeggagul woon foofu donc ku nekk rek da nga daan yem ci li nga am ni nga mel euh, wan nit ñi rek ne noonu nga mel def sa liggéey c'était l'essentiel. teewul am nga expérience boo xam ne bi nga am. boo xam ne jeune génération yi dinañ ko soxla mun nañ xam tey ban regard nga am ci journalisme bi tey surtout xale yi jigéen ñi di présenté tey jii yan conseil nga leen mën a jox. nu ma la ko waxee rek nit ku nekk da ngay dox ak sa jamono waaye dox ak sa jamono nag du du tax nga nga fàtte euh, fi nga jóge walla fi nga bokk. Euh, c'est important c'est suñu société bi de société sénégalaise dafa am ay valeur ay valeur yoo xam ne ci la sukkandiku te jigéen ñi surtout euh, ñoo ko gën war suuxat ndax jigéen mooy jur doom jigéen mooy yaay mooy soxna ci ku nekk ci jigéen la sox la soxe ko moo tax euh, ñu wax doon exemple te su nekkee nag ci télévision di feeñ euh, ñi lay xool dañuy defa li nga li ngay def rek moom la ñu war a def li ngay def dañ ko war roy soo doon toogee nag ba doon royukaay euh, am na lu bare loo xam ne danga koy moytu am lu bare loo xam ne tamit danga koy def te mu doon lu baax lu yiw lu rafet loolu daal dañuy la ñuy xaar dañuy xaar ci sans extravagance nag extravagance vraiment mooy xaw ma nu ma koy waxee ci tubaab mooy daal loo xam ne dafa ëpp dafa xër-xër yi dafa euh, télévision daal c'est un prisme déformant euh, dafa mel ni loupe dafa mel ni lup lu tuuti loo xam ne dafay lu nekk ci yow rek day yokk lu nekk ci yow day yokk moo tax daal. Euh, am na nu nga war toogee am na noo war waxee am na noo wax defee te soo jógee ci plateau bi nga toog tamit ni ngay doxalee sa àddina daf ci am solo ndax nit ñi dañuy bàyyi xel ci yow bàyyi bët ci yow ba li ngay wane soo toogee ci plateau bi wax na méngoo ak li nga doon soo ju génnee ci ci télévision bi. soxna Dieng mën nañu rappeler rek sa premier journal télévisé ngay njëkk a toog si plateau bi xam naa ne yombuloon <laughs> waaw bi jiitu sax journal télévisé bi mooy euh, premier démarrage yi télévision bi tout court animation euh, euh, bi ñuy démarrer la première fois bi télévision ubbee Sénégal c'était un soir de juillet 72 juillet 72 euh, j'étais à la radio je Sénégal directeur euh, radio télévision bi à l'époque euh, ndem si yàlla Alioune Fall gis ma ci bëccëg rek na ma ce soir <laughs> yow yaay <laughs> su ngoone yow yaay tàmbali télévision man ko tàmbali tàmbali télévision may lan mi ne waaw su ngoonee tu te mets à l'antenne et tu démarres les programmes ak ak les de Munich ma ne ko ah bon mi ne ma waaw ma sol sama yére <laughs> ñëw toog ñu teg ba projecteur yi ma yore sama kayit wax mais yàlla def boo comme amoon naa peut-être expérience radio pendant une année ça m'a beaucoup aidé je pensais avoir le trac ti tuuti fit wi di dem tuuti mais mais. fooy di naaw fooy sax mun nañ ko dégg ni nga koy xëccee. waaye daal yàlla def na ci sutura ce qui fait que bi ma jógee nag ci ci présentation programme bi ba ñeneen sénégalaise intéressé wu jege si ma ma doog dem journal télévisé. mais alhamdulilah sant yàlla bu baax. merci beaucoup. benn téere mu am benn